xoyantaan ngi noonu Mansour dégg nga ay supporter am di waa Gambia Gambian people Gambian people Gambian nation Mansour xool naan mburu yi kontaan nañu soo barke Rasulullah déggal déggal lii Mansour déggal lii ay supporter am takku nañu wala xoolal daal mu ngay fett Mansour dala Mansour of His Excellency President Adama Barrow and his counterpart and Senegal, President Macky Sall. I now present wax ak ñoom. Sénégal bi lan la ñuy xool. lan la ñuy xool lan la njoon leen nañ ko bàyyi bàyyi ma njoon yëkkati sa loxo oxo njoon nee na nañ ko bàyyi njoor nee na leen bu leen yàq sama bés xoolal xoyantaan xoolal xoyantaan c'est le king the king of lit of Gambia

maa combat bi du yàqu. dañu ko war a dagg. maa du yàqu maa suul. combat bi du am. parce que ay we du bëre. c'est le règlement loolu mooy yoon. xëy na kàddu yi ma ciy dégg laa ci rafetlu wul. Gambie ak Sénégal benn dëkk la lu ñaari dëkk. waaw nañu dindi complexité boobu. Gambie ak Sénégal lu ñaari dëkk benn dëkk la. nañu rafetal waxti nañu rafetal wax ji Xoyantaan champion la Bamba Ndione champion la kooku ñuy bam di bam de c'est un journaliste c'est un journaliste waruñu ko def nii c'est pas normal c'est Ndione na amul wee bu fekkee amul wee dañ ko war a bàyyi mu bëree loolu mooy dëgg su fekkee amul wee dañ ko war a bàyyi mu bëree. ko ñu ko war ñu ko war ñu ko mu amul mu ngi nii amul we mu ngi nii amul we amul benn we Baama ñoon nee na ko ñëwal Baama ñoon dagg na yooyu mel na ni bu fekkee dafa am amul amul amul we amul dara voilà tous fi amul day yàqu làmb ji day yàqu làmb ji day yàqu c'est pas normal. samay wee anamu ah samay wee anamu anamu anamu anamu anamu waaw anamu anamu wee eh. da doon xam ne ma kii maa ban bàyyam ba am sama akoon billaahi wallaahi tallaahi lii yëpp waxoon na ma ko si ñoom lii yëpp waxoon na ma ko kii bàyyam xontaan maa ban bàyyam yaa ngi dégg de billaahi wallaahi tallaahi moom morom xool mu ngi nii amu ma dara xool mu ngi nii anamu wee samay wee anamu amul amul wee amul benn wee it.